Nena, Mati mbay rakku mbay Mbaye kañaan bu ndaw la. eh, eh ma sa eh, morom eh. de. ya mato yaa ya bu mag bu yo su nek nekk bu ndaw. ay kinne si lii lan la li passe sa la. yow mi tok ya encadré Sara bu ci bir wañ bi mu meuna tok mbaxalu Saalum. xam nga numay def. Hmm? damay dem ko ñu dëbbale la. waaw ah mbay dama dem bay dem romb sara ci wañ bi yërmande dab ma ma dugg laaj ko mu ne ma mbaxalu saalum lay togg ta xamu ko mu ne xaaral ma ñëw rek summeeku jox sama ndaw ta kura jóob mbaxalu salum yaa ngi dem xew ma sara mu ngi taaje sa jëkkër mbaxalu saalum mu ne mu la sàjj ba xam nga ni lima daba job seri pap jangal ci mbaxalu saalum lépp tari naa ko fi tay dégg na ni mbaxalu salum ngay togg wow waaw ah Badran ne ya. mais comme kii dafa am expérience lu bari moom def naa lépp dina nekk donc sa ki ko def ki ko wax la bëgg wallahi waaw non lii ëpp na taay rek Al Capone sama maam mbaay dama bëgg balaa kenn di dugal loxoom eh, sa loxo bi saf na de merci ku la ma xam waaye li mooy lan yëpp. gën dafa lay yónnee message. gën nag wax ak envoyé message.